maa ngi tudd euh, Mamadou Seck euh, si sénégalais. Bamba Diop lañ may wax man. maa ngi fii ci Yamoussoukro. maa ngi tudd Modou Diagne. maa ngi dëkk Thiès Kër Sëñ Ablaye Yaqin. maa ngi tudd Fallou Silla. man la Wali Dioum nekk ci Yamoussoukro. def naa vingt 23 ans donc depuis 2001 la finio, fi ñëw donc euh, maa ngi yëngu si affaire bijouterie quoi. fii moom ça va quoi vraiment parce que fii comme ni ma ko waxee rek góor ñi dañuy takk or jigéen ñi dañuy takk or voilà ñoom tey doon bëgg waa dem ñoo bëgg ay bisu quoi moom boobu moom vraiment macha allah. ñu fi door waar donc alhamdulilah amuñu fi benn problème donc euh, ñu ngi liggéey ak waa réew mi ñu ngi liggéey ak euh, étrangers yu nekk fii ci réew mi ak sénégalais ñëpp macha allah amuñu xàjj ak seen daal ñu daal ñu ngi si atelier. waa toog di xaar ku ñew ñu wax ak yow. kan bi kan bi machallah xam nga di aussi da ngay da ngay créer aussi voilà donc kan bi man ma jek jek euh ne comme euh, Coupe d'Afrique la ñu wax nation yëpp dañuy ñew mané pourquoi pas ku ce logo mu ngi def sa mayo pourquoi pas ma jema kerek quelque chose créer quelque chose ak sa couleur deuk do may yéesee ko benn fois mu njëkk ñu tok fi ni ma fi tok ne ma moo frère ku def li ne ko mal la mu ne bul ko fooyee kii bo ci fawul mën na la yóbbu fu sori donc alhamdoulillah rabbil alamin xam mo tax ñu ne gémmiñu yëpp am barki de bo bo leg vraiment amul awma jot wax deug yalla awma jot même pour sax juk dem lekki wala donc <laughs> da nga koy da koy forcer pour juk man naa ni def naa fi ay fukki at fukki at ak nangam fii ci Yamoussoukro nekk feeg sama borom kër mën naa nekk feeg samay samay famille aussi nekk feeg ñu baax sénégalais yi waa réew mi ñëpp daal ñëpp baax. man nag maa ngi yëngu ci wàllum njaay ceeb dinaa di defar cere dinaa defar dëxin di defar euh, ñaari cin comme domoda maafe suppu kànja cu yëpp la ñuy togg fii dañuy jaay ay dege bisaab ay jus yëpp daal la ñuy defar di ko jaay fii. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax mi ngi dox. restaurant bi dafay lu yàgg ñun ak moom. bi ma ñëwee Yamoussoukro ba léegi fi laay añee fi laay reere fi laay defee lépp su ma xëyee daal ni may ñëw toog ba ba guddi jot ma dem. muy suñu yaay ju baax joo xam ne si ne wax dëgg yàlla ñun namuñu dara daal Sénégal pour le moment ndax wax dëgg yàlla lépp lu ñu bëgg ñu ngi koy defee ni ni mu daal macha allah daal.